Yeah! injures, les menaces, les intimidations. Je vous dis que fii Sénégal kenn ah, ne pourra terroriser personne. on fera face. ma cliente Adji Sarr, mhm. elle est là, elle est calme, mhm. elle est sereine, mhm. elle n'a rien à se reprocher. au contraire elle est là en train de répondre aux questions du juge. maintenant ceux qui sont un peu inquiets. Major TV. Ceux qui tremblent insultent. Insultent, Nous sommes dans un pays de démocratie. Un pays de démocratie majeure. Les gens doivent pouvoir exprimer leurs sentiments et leurs opinions sans insulter. Mais comme vous le savez, il y a aujourd'hui une sorte de catégorie d'hommes qui baigne dans la violence, dans les injures, dans les intimidations, dans les agressions. Non, notre pays ne sera jamais une anarchie. Notre pays ne sera jamais un lieu d'excellence pour les djihadistes. Notre pays ne sera jamais... Ah, ah, non quand même. du réew seytaane. du réewu réewande. du réewu jaay doole. du réewu saaga. ñun nit yiw lañu. réew Cheikh Ahmad Bamba. El Hadj Malick. Baye Niass. Sidina Issa Laye. Bou Kounta Ndiassane. ak bi. ñun xamuñu saaga mag. xamuñu ñàkk kersa mag. waaye am na catégorie bu ñëw bees. ànd ak leader bu bees. ci saaga. ci doy doole. ma ne ñun waa Sénégal nañu yar suñuy doom. le Sénégal est un Sénégal benn la. Sénégal Sénégal li tax gars yi jëfur ba ñëw di saaga. aji dafa yegg si jekk ànd ak caaj ànd ak sago gars yi gars yi terrorisé ci di saaga. ku mer bokkoo. te du cinéma. aji merul ñi mer nañ dee. mais la ma yow yaa sonn yow. mais non non non non pression mais tu fais du cinéma maître. am nañ boromam lépp dina leer si si si lépp leer audio yi vidéo yi lépp a ngi fi di leer ci Sarr moom ni cher